man yuriduuna kaydan falyuhlikuhum asbir sutuuri asbir moori kaashifuuna bilaa kibaa subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin barke Cheikh Amadou Diatta yal na ngeen ko yàgg a taxaw yal na ngeen ko yàgg a taxaw yal na ngeen ko yàgg a taxaw yal na ci yàlla defal rëy siir at mu ñëw na dàq morom ma at mu ñëw na dàq morom ma ci barke suñu daaru moori muy sinu maam nun ñëpp jërë ngeen jëf ahusu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Thierno xalifab Serigne Modou Diat di nuyoo ci turu Serigne Thierno maam xalifab Serigne Thierno Fadiagne ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yépp ñoo ngi ziare ñëpp di batalu àq ñëpp di baal àq ñëpp mu mel ni nag euh, su ngeen gisee programme bi daa am lu xew li waral loolu moo di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ saalihu ndigal la mu baaxoo jox sëriñ Thierno xalifab sëriñ Thierno fa jaañ ndigal loolu la sëriñ Thierno jotaat ñu war caa dem ajjuma tombeek la treize liggéey ba di la quatorze waaye sëriñ Thierno bu amee ndigal ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke jël ndigal lool teg ko ci loxo sëriñ Thierno xalifab sëriñ ab sëriñ Mor Diouf di wax ni mi ngi koy ànd ak nag mbokki jullit mbokki taalibe yépp ci ndigalal sëriñ Cerno xalifab sëriñ Mor ju Jatti mu ci woo nag mbooleem jullit yëpp mbooleem taalibe yëpp di wax di woo mbooleem koo xam ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sëriñ Cerno xalifab sëriñ Mor ju Jatti nee na mi ngi lay woo ci ndigal loolu ah ñu baaxoo jot ndigal nag ci sëriñ Cheikh ndigal loolu nga xam ne moom la sëriñ Cerno jot sëriñ Cerno moom sëriñ Cerno fa jaañ xolam da cee sedd xelam dal ci li loolu moo di daa gëm ni liggéeyal Serigne Touba yomb na lool waaye Serigne Touba liggéey loola nag moo gën a jafe moom nag tey ndawal sëriñ Touba di Serigne si Ahmadou Mbacke moom Serigne Salihu moo koy liggéeyloo liggéey ba nag di xel koom tool yi nga xam see ni na mu daan mel mel na ni Serigne Cheikh bëgg na nun ko daan def ñu def ko noonu Serigne no moom Serigne Thierno Fadiane nee na mu ngi ci woo mboolem jullit yëpp waaye rawate na murid yi waaye rawate na nag mboolem ñi nga xam ni. sañ na leen a soññi ñu di ay jëwrinam tàmbalee nag ci jëwrin yi mbooleem ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo soññee ku ci mel ni sëriñ bàcc njaay ca ngaa xam sëriñ Ceerno nee na mi ngi koy soññi di soññi mbooleem waa ngaa xam gépp Demba Njaay di yore kàddoom nee mi ngi koy soññi di ñaan suñu borom ñu fekki kook jàmm waaye nee na mi ngi soññi suñu bokki masar yi imaam Modou Fall jiitu ca sëriñ bi nee na mi ngi lay soññi bu baax di soñ di ñaan nga soññi mboolem taalib yëpp waaye nee na ngi soññi itam nag mbokki cokke yi waaye ku ci mel ni sëriñ ngañ dooy nekk ca bopp ba nee na mi ngi koy soññi di soññi mbokki cokke yëpp waaye di soññi waa kër Mori waaye ku ci mel ni Ibrahima Ndiaye nekk ca bopp ba sëriñ Thierno nee na mi ngi lay soññi nga soññi mbooleem fere yi waaye di soññi waa mbayeen bu baax a baax sëriñ Mbacke mbay nekk ca bopp ba waaye nee na mi ngi soññi itam nag suñu mbokki lew na yi maam Thierno Mbaye ak sëriñ Abdou Mbaye nekk ca bopp ba nee na mi ngi leen di soññi ngeen soññi mbooleem taalibe yi waaye nee na mi ngi soññi itam nag waa waxal sëriñ Moussa Dieng nekk ca bopp ba nee na mi ngi leen di soññi nee na nag nan ngeen daan soññee ren na ngeen soññee ñu raw noona ndax sëriñ bi nee na dugub ja nu mu daan mel ren moo ko raw fuuf kon nee na mbooloo rek moo ko fay dimbali te mbooloo moo ko fay jariñ waaye nee na mi ngi soññee itam nag waa Daaru Juuf bu baax a baax fii nga xam ne mooy départ bi Daaru Juuf nag bu nu ko tuddee comme digale fi la wàcc kon yéen waa Daaru Juuf af waay mën a nekk sëriñ bi nee mi ngi lay soññi waaye sëriñ Omar Mbay moo nekk ca bopp ba waaye nee na mi ngi soññi itam nag waa Daaru Alimul Xabir sëriñ Omar Seen ak sëriñ Cerno Kan ñoo nekk ca bopp ba nee na mi ngi soññ waa daaru alim gépp bàyyiwul kenn waaye nee na mi ngi soññe itam nag waa ségal sëriñ ma xujja sëriñ Cerno nee na nga bu baax a baax waa ñaange itam nag sëriñ Moussa Mbay ak sëriñ Moussa Mbay mu ndaw ak waa ñaange gépp sëriñ Cerno nee na mi ngi leen di soññi ngeen génn ci tali bi incha allahu rabbi oto leen nu fekk waaye nee na mi ngi soññ itam nag waa Jubaas sëriñ Cerno Diouf ak sëriñ Mañangloo sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññi ngeen takk bu baax a baax waaye nee na mi ngi soññ itam nag waa kër Allé Gueye bu baax a baax di soññ itam nag waa kër Allé Gueye Serigne Ibrahima Seck moo nekk sa bopp ba waaye nee na mi ngi soññ waa kër Magor ku ci mel ni Serigne Bàcc Mbay ku ci mel ni Serigne Muudu Mbay ñoom ñëpp sëriñ bi nee na ngeen gën a dëgëral seenu dox te soññ mboolem taalib yëpp di soññ waa mbooro ku ci mel ni Serigne Cheikh Jenn Serigne bi neena na la waaye nee na mi ngi soññ waa Mboro Géej it ñëpp ñoo ngi leen di soññ ndax ñoom it ñu am pas-pas la te fu mu mosaan jiitu buñ geestoo gis leen waaye Serigne bi nee na mi ngi soññ waa daara xulóos ci jiital jawrin ja sëriñ euh, Aliou Niang sëriñ bi nee na ngi lay soññ di soññ mboolem waa daara xulóos gépp waaye nee na mi ngi soññ itam nag sëriñ Omar Sa ca Daaru Mbooy sëriñ bi nee na fàttewu nee na mi ngi lay bàyyi xel nga soññ mboolem waa Daaru Mbooy gépp waaye nee na mi ngi soññ itam nag waa ngaa xam ko ndaw mi ngi leen soññ bu baax a baax ku ci mel ni sëriñ a sekk nekk sëriñ Moussa Seck moo nekk ca bopp ba ak mboolem waa nga xam gépp ku ci mel ni sëriñ Malick Ndiaye waaye nag sëriñ Abdoulaye Ndiaye sëriñ bi nee na mboolem nga soññi mboolem fere ndaw yi nee na daal mi ngi soññi kullun rijaalun wa nisaun wa saqiyun wa kabirun nee na mi ngi soññi waa sabu nee na mi ngi soññi mboolem fu ab taalibe mën a nekk ci gox yi fasantikoo yi sëriñ Thierno nee mi ngi lay soññi waaye di soññi itam nag ñi nga xam ne ñoo nekkee wàllu mbuur sëriñ bi nee ngi leen di soññi ñi nekk wàllu jiwaalo sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññi ñi nekk waalo ndakaaru sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññi sunu mbokki ndar yi sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ñi nekk ñu nekk cëmru si tamit nag sëriñ bi nee na mi ngi leen di soññ bu baax a baax a baax di soññ sëriñ Thierno Thiam ak mboolem waa cëmru si gépp sëriñ bi nee na mi ngi soññee ba ci nga xam ni ñoo nekk ci bitim réew ku ci mel ni sëriñ Muudu Jaañ sëriñ bi nee mu ngi lay soññ bu baaxa a baax a baax nga gën a dëgëral sa taxawaay ak ku mel ni sëriñ Cheikh Mbacke Ndiaye ak mboolem fu waaye mën a nekk ñi nekk itaali ñu ngi leen di soññ ñi nekk Amérique sëriñ bi nee na kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ndax bu sañoon bu jotee ndigal mboolem taalibe yépp mbooleem murit yëpp mbooleem jullit yëpp munta dem bàyyi kenn bu sañeen ànd ko yéen ba li nga xam ne moom la ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke digge ci ak pay te jële ko ci sëriñ Saalihu mu bokk ak mbooleem jullit yëpp sëriñ bi nee na mi ngi bëgg kenn ku ci nekk ci dëkk yi mu wax ku ci ne sëriñ bi nee na fa ngeen daan génn la ngeen fa génn incha allahu rabbi oto yi dana doy lool te danañ leen fa fekk ci kàttanu sunu borom waaye nag mi ngi soññi waa Màkka eh, sëriñ Malick Guèye sëriñ bi na mi ngi lay soññi nga soññi waa Sanc soo ñëwaa ñaa ngi tas boo la rëy sëriñ bi leen sëriñ bi leen bayul kenn bayul fenn bàyyiwul ñenn ñi nga xam ne nag ñoo kenn ku ci nekk taliba fa la gën a jege ci ab demuwaay incha allahu rabbi oto yi den la fa fekk den leen yóbbu ci jàmm den leen dellu ci jàmm pobu yi itam pobu mi itam nag ngeen teelal pobu mi suñu julee jumaa rek daal di fobu ndax balaa guddi ñu àgg ndax fa nu jëm sori na te it e, liggéey ba bari na sëriñ bi daal nee na bu sañoon munta dem bàyyi kenn munta lekk bàyyi kenn mboole murid yi ak tijaan yi xaadir yi ak laayeen yi sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp suñu borom yóbbu nu si jàmm ñu fekk fa jàmm te la fa sëriñ ba digee ci ak pay ñu jariñoo ko ci barkab seexul xadim barkab sëriñ saalihu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaare di jiital ci nuyoo bi sëriñ Thierno xalifab sëriñ Mor Diouf Diatty di ci teg sëriñ Thierno mii ci wetam di sëriñ Thierno xalifab sëriñ Thierno Fat Diagne ak ay rakkam ak mbooleem taalibe yi di di di di nuyu bu baax seex Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan su borom yàggal ko fi lool te wér balim naa la liggéey sëriñ Touba lépp mu àggale ko ten fekke ko ci barke Seexul Xadim noonu it lay nuyu mbooleem kilifa yi yi nekk ci réew mi ñëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn euh, xanaa ñu tënk wax yi rek ndax day mel ni li liñ war a wax lépp suñuy kilifa wax na ko muy sëñ Cheikh euh, li des ab soññee rek la te soññee moom am na ñeneen ñoo xam ne dinañ ci agsi dari lu munta ñàkk kon ginnaaw bu ñu nuyoo siyaare ñu baaxoo def rek lan moo mu dellu siwaat muy ndigal lu jóge ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke moom sëriñ Saliou wàcc si ci sëriñ Cerno mii moom sëriñ Cerno Fat Jaañ mu jël ndigal li teg ko ci loxo sëriñ Cerno mi nga xam ne moo fi sëñ Modou jat mu ànd ko ak ay rakkam yépp sëñ Modou Mbène ak mbooleem ay rakkam noonu lañu limee mbooleem ku sant Juuf képp xam naa dinañ ci dellu si incha allah kon ndigal loolee moo dellu siwaat ñu war a fas yéenee dem xel koom la 14 di am ngóob ngóob nag sëñ bi képp bu demee du ko man ba tax na mu bëgg a woo mbooleem jullit yi yëpp ànd ak ñoom rawat na taalibe yi rawat na ñu yaakaar ke sëriñ moo ci jatti nee na bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn mi ngi ci woo ñëpp mbooleem fu ab sëriñ nekk wala ab taalibe wala xarit wala wóolal wala soppe nee bu soñan nga ñëw ñu ànd wuy ji liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ñu wax ndax ndigal kat caabi la su xëppee du tijji waaye su yeeseet du tijji te soo ko yootaanee yàq kànnaar ba kon nag ndigal la ñu jot fas ko yéene jëfe incha allah la 14 la sëñ bi wax waaye la 13 la war a départ di àjjuma incha allah kon ni ko sëñ Cheikh waxee eh, li ci des nag mooy mbooleem fu ab taalibe bi nekk te bëgg a dem xel koom fi nga xam ni baaxoo nañ faa taxaw ci demukaay yi départ bi dey bi jiitu mooy fii fi daaru juuf dinañ taxaw fii fi daaru juuf ba ñëpp yéeg ñu ànd ak ñoom ségal it fa taxaw incha allah mboolem waa ségal ñëpp kuy dem génn ak ku leen gën a jege du ñàkk benn bu jaar noona ba daaru ndóoy jaar noona wuti wuti siin ba tofi ndax tofit ab départ la mboolem dëkk yi jege foofu ku mel ni giñaax ak waxal ak lew na ak mbooleem tofi yëpp ñu génn foofu ci arab tofi bi incha allah ot yi dañ fa jël si lu mel ni ngaa xam gu mag kasaaka noonu ab départ la mbooleem dëkk yi leen jege te bëgg a dem lu mel ni ay cokkeeg yooyu ku fa jege rek incha allah dina fa taxaw ba ca ba dëkk bu me mexe incha allah wuti bu buñ jëlee tali biit incha allah croisement dina fa taxaw mu mel ni kon waa kër Alla Gaye waa du waa Daaru Mbooy ñoom ñëpp nañ teel a génn ndax ci télé bi la jaar ba keroog ñu àgg croisement croisement nag waa Kër ma góor nañu teel a génn waa Mboro waa Njuufeen Daarul Bayaax nañu génn ñoom ñëpp ñu ànd wuy ji xel Xelkom dinañ leen xaar croisement incha allah nañ ko baaxoo defee waxtu at mu at mu jot noonu la ñuy doxee ba Daarul Xudóos Sëriñ Aliou kon bu ko yégee na daal di teel a génn soññee te soññuwaale mbooleem taalibe ya ak xarit ya ak góllëre ya ñoom ñëpp nañu génn ñu teel a dem buñ fa jógee dinañ taxaw ndóomóor ngaa xam ngu mag ak ndóomóor ak kër Aliou Fall mbooleem dëkkee ko jóge yëpp ñoom it nañu teel a génn te xam ne foofa ab départ la bu nu fa jógee dinañ jaar Tiwaawan noonu def ba Pire waa Masar waa Daya ak mbooleem dëkk yi lañ jege ñoom it nañu teel a génn piir bu leen Pire gënee jege nañu génn ku ci ngaay gëj a jegeet nga génn ngaay incha allah ay ay taxawukaay la yoo xam ni daamaar yi dañ fi taxaw incha allah buñ fa jógee nag ñun ñëpp ñoo ngi day ji ngaay incha allah buñ jógee foofu nag la ñuy def la doon départ ba ñu fas yéene wuy ji liggéey ba ñaan suñu boroom ndax kat sëriñ bi dafa mel ni sas na sëñ cerno mii waaye sëñ cerno sas na ko sëñ cerno xalifa bi ndax ndigal bi mu wàccee bokk na ci lañ njëkk a dégg mooy toolee nam daan mel mel na ni jot na ndigal ci seex Muhammadu Muntaxa kon sañ naa joxe ndigal waaye nag nee na mi ngi ñaan sëñ Thierno ni ko na nga ñaanal na nga ñaanal julli yi nañu dem xel koom ci jàmm dellu si jàmm foog naa loolu la wax ci téléphone ba na nga ñaan bu baax mbooleem taalibe yi ñëpp nañu dem ci jàmm dellu si jàmm loolu nag sëb sëriñ bu la ko bu la ko waxee sas na la kon moom it sas na ko xalifa bii nga xam ne mooy moo fi sëñ Modou Diatte kon ndigal li mi ngi noonu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa duñ ko tudd waaye ni ko sëñ Cheikh waxee rek mbooleem jullit lañu woo mboolem Tijaan mboolem Xaadir mboolem Layen mboolem Bayfaal bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn lépp lu ci des xam naa sunu kilifa yi dinañ ko àggale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wa najji saaliina bi wa saaliaat baxda najaatiya bi xaqi saariyaat sëñ tubaakat moo ñaan boroomam li li baax ci àdduna te war a am ngërëmul yàlla yàlla na ko yàlla dogale ci moom Serigne Touba Khadimou Rasoul ñu teew ci kanamu Serigne Thierno xalifab Serigne Mor Diouf njëkk bu ndigal jóge ci kër sëriñ Touba ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Mountakha jaar ci sëriñ Cheikh moom Seydina Serigne Saliou wàcc si ci Serigne Thierno maam xalifab Serigne Thierno Fat mu ñëw ci ron. sëriñ Cerno xalifab sëriñ Mor ngir war yëkkatee ndigal li ba àdduna dégg ko man ko jariñoo sëriñ bi woo ci mboolem ay dëkkandoo yi mu dëkkal ci dëkk bi Daaru Diouf sëriñ xalifa bu toogee dëkk bi jëmm yi ngeen ci jàkkaar teew xam leen ni fa nu jëm dara mënu leen faatee am ndam ndax sawu jant bu yëkkatee itteem faw yàlla gàttandoo ko ndimbal moo tax sëriñ bi nii nanu yëkkati kàddu ci aw turam woo ci mboolem bokki yi mu bokkal sëñ Mor Diouf woo ci mboolem bokki jullit yi woo ci mboolem bokki taalibe yi kon bokki jullit yi sëriñ no maam moo yëkkati kàddoom ci ndigalul sëriñ Thierno Fat Diagne di woo ci liggéey bi nga xam ni mel na na mu daa mel àgg fa mu daa àgg sëriñ bi joxe ci ndigal ñu war ko wuy ji war koo jëfandikoo nam ko bëggee moo tax Serigne Thierno maam di yëkkati kàddoom tàmbalee ko ci Serigne Thierno xalifab Serigne Mor Diouf Diatty ak mboolem kum bokkal Serigne Abdul Karim mboolem ay rakkam ak i taalibeem mi ngi leen di woo ci liggéey boobu yi ginnaaw bi mi ngi ciy woo njabootug daaru Darou Seynabou ci kilifteefug mu Muudu Mbenn mboolem ay rakkam ak i taalibeem ginnaaw bi mi ngi ciy woo Serigne Fallou Diouf. xalifa sëriñ Abdou Mbooy ak mbooleem ay rakkam ak taalibeem ginnaaw loolu mi ngi ci woo sëriñ muudu imaam xalifab sëriñ Mbakke ak mbooleem ay rakkam ak i ginnaaw loolu mi ngi ciy woo sëriñ Moustapha Diouf xalifa sëriñ Alaaji Cerno ak mboolem ay rakkam ak taalibeem ginnaaw loolu mi ngi ciy woo sëriñ Mamoor Diouf moom sëriñ Cerno ami njoogu ak mboolem ay rakam ak di wéyal woote bi di ci woo sëriñ xaadim Diouf moom sëriñ Thierno Boussa Mbuub ak mboolem ay rakkam ak i taalibeem ngi wéyal woote bi di ci woo sëriñ Cheikh Diouf moom sëriñ Abdoulahi Khadi mboolem ay rakam ak i di woo sëriñ Abdou Jamil Diouf ak mboolem njabootuk sëriñ Abdoulahi Khadi ak sëriñ sëriñ Abdoul Quddous ak mboolem ay rakkam ak i taalibeem di woo sëriñ Thierno Diouf xalifa sëriñ Omar Diouf ak mbooleem ay rakkam ak taalibeem ci biir loolu yi mi ngi woo doomam sëriñ muudum sëriñ Touba Diouf ak mbooleem ay rakkam ak taalibeem mi ngi woo itam sëriñ Moustaphaam sëriñ muudu Fatou mbay ak mbooleem ay rakkam ak i taalibeem di wéyal woote bi di jagleel ab woote ni ci sëriñ bi joxe woon ndigal ci gàmm gi sëriñ Cheikh Thioune miy jëwriñu taalibe yi mi ngi koy woo ci liggéey bi mbooleem ay rakkam ak i taalibeem di wéyal woote boo bii di woo njabootug sëriñ góoram ak say juuf ci njiital sëriñ bàcci juuf ak sëriñ jiili moom sëriñ ngañ di leen woo mbooleem seeni rakk ak i ak seeni taalibe mi ngi woo itam sëriñ Cheikh moom sëriñ Mamor Ari di njabootug sëriñ Mor Mati Ngar mi ngi leen di woo mbooleem seeni rakk ak seeni talibe di woo mbooleem seex yi nga xam ni ay kilifay diine leen aju ci yoon wi di ko tàmbalee ci Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Maam Sawru Fall di sëtug boroom Daaru Fall mi ngi koy woo mbooleem bokk ya ak taalibe ya di woo sëriñ Jiili Mbay moom sëriñ Cheikh Mbay Njaane ak mboolem ay rakkam ak i taalibeem di woo itam sëriñ Muudu Ja Mewaan ak mboolem njabootug Serigne Cheikh Ja ak i taalibeem diwoo woo sëriñ xaadim mbay ak mboolem ay rakkam ak i taalibeem ca mbooro diwoo itam sëriñ abdul ahad njaay ca tuuba naylu mbooleem ay rakkam ak i taalibeem di woo fu ab jullit nekk di woo fu ab taalibe nekk ci ndigal li nga xam ni ngërëmul yàlla dong leen fay wuti te rafet na njortu ni ku yëkkati sa it dem fa booy ñëw faw ngërëmul yàlla toppe la fa sëriñ bi nee na mi ngi woo mboolem daayira yi aju ci kër sëñ Mor Diouf Diatty di ci jagleel daayira yi aju ci kër Serigne Thierno Fat Diagne di ci jiital xidmatu taysirul asir bopp Serigne Thierno Fat Diagne di ci teg fédération bi nga xam ni ñoo soppee Serigne Thierno Fat Diagne yi ñoo tënk mboolem njabootu Serigne Thierno Fat Diagne mboolem daayira yi nga xam ni ñoo aju ci kër sëñ Mor Diouf Diatty ak buntu kër gu mën a siyaar Serigne baa ngi leen di jagleel ab woote ngir ñu ànd ak ñoom liggéey boobu ñoo ngi ciy beral itam ak woote. jëwrin sëriñ Pape Thioune jaayante ca Touba Kër ab taxawaayam pëstéefam tax na ñoo ngi koy soññi di ko soññiloo mbooleem daayira yi féete foofa ngir ñu mën a ànd liggéey bi sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo mbooleem waa tuubaa ci kanam Touba fas booy ci jëwrin sëriñ El Hadji Sarr ak sëriñ Njawoor Diop sëriñ Amdi Moustapha Niang sëriñ Mayoro Mbay ak mboolem bokk ya ba ci bàyyi su këy bàyyi su këy booy saw sëriñ bi nee na ñooñu ñëpp bàyyi booy su koy saw mi ngi leen di woo ci liggéey bi ngir ñu ànd ndigalul sëriñ bi nam ko bëggee ñu man ko ne defee ñu dem ci jàmm dellu si ci jàmm kon sëriñ na yow mi nga xam ne woote bi ci sa kanam la ko sëriñ bi defe nee na mi ngi dagaan mi ngi sakku nga ñaanal ko ci barkeb sëñ Mor Diouf Diatty ñëpp dem ci jàmm dellu ci jàmm la sëriñ bi bëgg ñu def ko ci jàmm ca daje ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonent bi ak ngërëmul Sëriñ Tuubaa ñoo ngi sant bu baax ñu ngi gërëm di la ñaanal nga yàgg fi lool ñu yàgg teew ci sa kanam yàgg yëkkati kàddu te kàddu gi jur ndam wasalaamualeykum wa rahmatullah xanaa ñu dellu rek am ñu nu fàtte woon baa ku nu fàtte woon te mu nekkoon jàmbaar ci kër gi muy ko mel ni sëriñ Cheikh Thiam ca Daya di njabootu Baye Demba Thiam ñoo ngi koy fàttaliku bu baax a baax waaye moom jot nañ jigal ci sëriñ bi nee na mu daan doxale ngóobaan ya na ko defale noona ndax bari na ñoo xam seeni suñu déggee déggalal sëriñ bi suñuy jug dañuy daal di jug rek daw waaye moom mu daan gàttandu ci ngànnaay kon sëñ Cheikh Thiam yaag Baye sëriñ ak Saala ak maam Thierno ak mboolem njabootu Baye Demba gi sëriñ Thierno nee na na ngeen ko daan doxale nee na bëgg na ngeen doxe no raw loola mi ngi leen di xaar pire incha allahu rabbi yal na yàlla defal leen tawfeex ak tayseer ci barkab Seexul Xadim Gracias. ngeen dem ci jàmm dëkk ci jàmm at mu ne dàq morom ci barke yàlla defal leen yëpp def ko taalibe defal ko bépp ci amiin yàlla képp yàlla def ci jàmm yàlla yàlla jàmmal leen ci barke borom Tuubaa